candidat bu parti démocratique bu Sénégal ñu daal di koy génnee ci liste candidat yi nga xamante ni nag ñoom ñooy dem ci joŋante yi naam nag mu ne dina def kéem kàttanam ba daal di ciy bokk. PDS aussi amul woon beneen candidat. loolu bett na Karim bett na PDS léegi nag euh, PDS lu mu jot a wax mooy que dina laaj assemblée nationale ñu taxawal benn commission parlementaire euh, ñoom tamit euh, Karim dina def. Euh, recours ci juridiction africaine wala juridiction internationale. Euh, Bassirou Diomaye Faye euh, moom nag bokk ci candidat yi nga xamante ni dinañ dem ci joŋante bi wante nag ak jafe-jafe yi mu am ak yoon situation wam dafa xaw a compliqué naam nag mënees naa dundee yaakaar. bu dee prisonnier nga nekk candidat loolu mën nga am résultat bu baax en tout cas ci opinion bi mën nga am aussi bon résultat ci au plan international. donc gouvernement bi moo war a seet euh, ban décision politique la ñu war a jël parce que c'est une question politique quand même avant tout. ñu bëri jàpp ni moom mile moom mooy wuutu kii di Ousmane Sonko lu soxal Karim wadd nag ak PDS lenn rek moo fi daal di sës ñu boole seen doole ak seeni carte ci keneen ki nga xamante ne bokk na. ci ñu conseil constitutionnel daal di jàllale. PDS mën na xool ne man dem du ma bokk ci élection bi du ma jàppale kenn beneen option bu mën a am aussi mooy que PDS ànd na ak Yewwi Askan ci élection législative beneen option bi aussi mooy Khalifa Sall. Euh, Diomaye euh, Karim Wade weer rek moo leen daal di dese ngir ku nekk daal di régler situation wam Karim nag ci réseau sociaux wam yi mu daal di fësal ni dina topp mbir yi euh, Diomaye nag ba léegi kenn mënu koo dégg ndaxte moo ngi ndungu siin.